sama jàngat mooy kontaan naa parce que parrain bu koy wut toujours dañuy seet référence boo demee nag ba ñuy wax la yow référence nga pour def la parrain da nga ci war a kontaan te loolu yëpp fii dañu jàpp dañuy jàpp ni jeunesse bi dañ leen war a dimbali dañ leen war a dimbali yëpp dimbali leen ci aussi sport parce que sport day tax bu ñu waroon dem defi leneen sax dinañu parce que sport bi final bi c'est une préparation de longue haleine donc occupé na leen pendant une longue période ba la ñu egg si final loolu yëpp day tax seen esprit dem ci leneen te loo xam ne dafa baax ci yaram tenue un corps un un corps sain un esprit sain dans un corps moo tax si ex les activités de jeunesse activités sport compris c'est vraiment fédérateur day tax mu indi jàmm ci jeunesse bi et tout ça moo tax ñu accepté parenage bi parrainé ko ñëw di encouragé yëpp ba end ceeg le maire ànd ceeg la présidente du département Tivaouane ànd ceeg sama xarit yi nga xam ne kii ñi ngi liggéeyal président de la République ku mel ni Mamadou Ba nga xam ne bi ngi jógee ba département de Nioro te nekk directeur APROSI vraiment ma mu doon une grande fête ñëpp kontaan lii la bu ñu lii parce que fii président Macky Sall daf fi def lu rëy daf liggéey lu rëy liggéeyal suñu sëriñ lu rëy vie religieuse yëpp mu def fa lu rëy ba suñu sëriñ ni ko jaajëf jaajëf moom bu tuuti la mais ku deful dara duñ ko ko wax donc ñun aussi ñu nekk fi di politique ñu war a jàppale président Macky Sall bu baax jàppale ko mooy jàppale ko ci jeunesse yi jàppale ko ci jeunesse yi ñoo am ay débouché jàppale ko aussi pour activité bi dañ ko def mais dañ ciy profiter pour sensibiliser nit ñi ni comme Tivaouane président daf fi def le il faut que ñëpp dem. ci ci dem inscrire dans les listes les les cartes biométriques là ñëpp am ko bu ko defee inscrire ba nga xam ni fichier électoral dañ koy fuul buñ ko fuulee bu mag bu ko defee buñ fa gagné mu doon un poids significatif par rapport à l' ensemble du Sénégal ñu nekk fii euh, kii euh, Tivaouane le département Tivaouane donne un poids électoral bi nga xam ni comme président dafay gagné à 100 pour cent nous avons aucun doute parce que y' a même pas d' donc bu ko defee ñu gagné fi largement bu ko defee yeneen zone yi nga xam ne dañu fa faible daawoon ko largement moo tax monsieur le maire est là jàmbaaru président nga xam ne il fait des résultats énormes ñoom ñëpp ñëw nañu maire département bi yëpp ñëw nañu c'est le département c'est le seul département où il y a l'unité où il y a l'unité nous avons un coordonnateur départemental qui a été désigné à personne et nous travaillons dans l'unité man la ñu désigné comme coordonnateur département maire yëpp ànd ak man ñuy liggéey parce que président Macky Sall dañ ko bëgg a jox quatre-vingt-dix pour cent ici mais avec un important mooy que ñëpp dem dem euh, inscrire ci liste yi nous sommes organisés on a déjà recruté on a déjà recruté jeunes qui vont commencer à travailler pour dimbali ci cinquante jeunes yi nga xam dañuy dimbali nit ñi ci rang bi dafa son dafa metti ñu dimbali nit ñi dem ragal leen bu seen tour jotee ñu woo leen ñu ñëw ñu defaral leen bu ko defee ñun fii suñu objectif du gagner parce que xam nañ dañuy gagner suñu ajouté mooy gagné a à 90 pour cent pour que zone yi nga xam dañ fa faible ñu mën ko mottali bu baax jawaawan ci kanam jawaawan ci kanam président Macky Sall ci kanam APR ci kanam. réalisation stade bi. réalisation stade bi amul benn problème parce que bi fi ñëwee bi ñu jëlee fii maire bi li ñu jëkk def mooy euh, kii yi gis ngeen ko lampe yi di projecteurs yi gis ngeen ko biñ fa ñëwee dañ ñëwoon bu ñu gañee dañ ko def te ba ñu gagné un mois lañ ci teg def ko donc weddi gis bokku ci. ñu ni leen dig nañ leen fii dinañ ko gasone man ak sama frère Diagne si Mbeng ak seen bëggee ture dinañ ci taxaw ñun ñoo nekk Tivaouane te nekkal fi président Macky Sall dinañ ci taxaw ji gasone ko te mataar Ba dinañ ci dimbali parce que yàggul rek maa ngi doon waxtaan ak moom mun ma stade Tivaouane gazon bi moo ci desoon te dina ko def te ñoom bu ko deful sax ñun on va trouver les moyens avec les sociétés minières yi fi nekk pour gazonner fii. donc on s'est engagé on s'est engagé devant cette jeunesse gazon li ñu bëgg. li ñu sasoon mooy lamp yi def nañ ko ñu sas ñu gazon bi dañ ko def ñu sas ñu améliorer les fonctionnalités stade bi yëpp nañ ko def. jafe-jafe liggéeyu ndaw yi ci département bi. waaw jafe-jafe liggéeyu ndaw yi département wax naa la ko te xam nga y a ce qu'on appelle une euh, entre potentialité liggéey yi fi am ak nit ñi seen seen seen capacité parce que y a ce qu'on appelle euh, y a un problème d'employabilité donc loolu ñu mën def mooy ñu tijji ay école formation professionnelle tijji na loolu dañuy discuter ak société minière yi fi nekk fii ñu tijji fi benn ay centre de formation c'est très facile de formation tàngat nit ñi ba nga xam ni que bu ñu génnee foofu rek dinañu mën a jël ñu liggéey parce que aussi les entreprises l'outil de production est important il faut que mu am ju baax ñu koy liggéey pour mu def boo amul benn métier bëgg liggéey day metti il faut que nit ñi bi ñu tijjee école yooyu ñu dem ci wuti tuuti xam-xam bu ko defee société minière yi bëgg leen jël parce que société minière yi jël ku fi nekk ku dëkk Tivaouane ku dëkk ci zone bi moo lay gënal jël ku fi nekkul ku fi dëkkul parce que boo jëlee ku fi dëkkul kooku day day day li muy am il faut mu dem luye yi am kër def yooyu yëpp day gën a metti ci moom société minière yi moo tax ñuy def toujours ñu def société ñuy def unité unité ñuy def euh, euh, base bi comme comme ICS mbay mbay base bi bu ko defee ñu jigée outil de produit parce que ñi dañ leen di soxla tout le temps donc bu ñu amee ñoo xam ne ci fii lañ dëkk ci zone bi ñu ne loolu moo gën a baax ci productivité usines yi fi nekk léegi ñoom ils sont prêts à nous pour tijji fi ay centre de formation pour former nit ñi bu ko defee bu ñu amee formation rek dugg ci usines yi liggéey